ci les échos voilà merci beaucoup Cheikh merci, à tout à l'heure alors euh, Chérif dañuy taxawaat ba léegi rek euh, ci compagnonnage diggante Idrissa Seck ak euh, président Macky Sall dégg nañ sa Seck li mu wax ne day nekk candidat boobu ba léegi moom mi principal concerné bi muy président Macky Sall dégguñu mu wax ci waaye ñi mu àndal ñenn ñoom ñoo ci àddu naan àndandoo bi dafa war a dakk dégg nañ ko Idrissa Seck tontuwaat na nee na jarul ñuy tontu maanaam bu ñu faale ba tax ñenn ñi sax di samp laaj ndax amul lu euh, laxasu ci biir ndax ñoom ñaar réeroo nañu finalement ndax des personnes ont été écartées ci coalition bi euh, pour moins que ça. bien sûr parce que Idrissa Seck lui-même wax na ko aljuma bi mu jàkkaarloog journaliste yi fële ca Thiès. pour ci ñaari ponk bokk na ci ba mu ne dafay seeti Ousmane Sonko nee na la veille moog Macky lu ñoo jullandoo ba gis nga ko ñëwoon na ci saar yi nga xamante ni tari nan ko fa ak yu ni mel naa lendemain bu dem gisi Ousmane Sonko ba ne ko bàyyi ma man ma dem gis ko am na loo xamante bu buñ ko fa waxee bu bu dee réussir route moom moo yor décret bi mën na ko ci dàq loolu benn anam la ci affaire mandat bi aussi buñ taxawee ne kon la moo tax le président n s'est pas encore prononcé ci affaire mandat bi. Mm-hmm. moom nee na moo ko conseillé ngir. mu bañ cee waxagum donc ku wax loolu donc ce qui veut dire que ñoom ñaar ñi ngi diisoo ci li nga xamante ni moom mooy ci wàllu wax nga pour moins que on a vu des responsables yoo xamante ci APR lañ bokk dàq na leen parce que dañ ne président warul bokk wala ci affaire mandat bi on peut citer Sori Kaba Moustapha Diakhaté maître Moussa Diop mi fi jiite woon Dakar Dem Dikk et cetera pour Idrissa Seck gis nga ko même démb communiqué bi mu def ne ay ñooñam jëlu ko toon donc je pense que muy loo xamante ni APR nag day parti boo xamante des fois ñu ci bëri dañuy demee xel

nit koo xamante ni jóge na ci opposition mi ñëw ci pouvoir bu élection jotee mu daal di benn yoonam ñu mm. ngi fi joxe cas Ablaye Wade mais bi ci mujj c'était Landing Savané en 2007 bi nga xamante ni àndoon na fekk Ablaye Wade pendant sept ans élection mm. jot mu daal di ber dem est-ce que jar na yenn attaques yi surtout personnel mel na ba naan na na delloo ndomba tànk bi rek nan ko dàq na tiire li nga xamante ni quand même moom mooy conséquence jëm ci wàllu alors que je pense que Macky Sall ci boppam situation bi arrangé na ko au plan politique parce que li ñu dégg y a un journal qui le dit fin de la bipolarisation parce que demoon nañ ba finalement bu ne Macky Sall ne Ousmane Sonko hmm. maintenant gis nga Idrissa Seck ba mu duggee ci laa ngi rëbal léegi moom c'est son domaine loolu lañ ko xamee même s'il y a beaucoup de choses à ci li nga xamante ni quand moo jëm ci conférence de presse bi ak na ñaari cas yi nga xam tamit xëy na gars ñu ngi koy régler autrement on verra fan la fan lay mujj ci wàll woowu mais ci wàllu politique loolu lañ wax quoi après nag dafa am ñoo xam ne dañ fa nekk mais je pense que dañoo xaw a manqué culture politique on en nañ ci parti bi mais xëy na amuñ expérience ba wala tamit la la taxaw jóg politique bokkuñ ci quoi parce que ñoom xëy na jàpp nañ ni suñ yi ñoom leen intéressé mooy remplacer ba et cetera alors que affaire bi ça dépasse lu mel noonu parce que Macky Sall ku ne xam ne moom xaw naa fiir ci nguuram te gaaw na signé décret ngir dàq ci mel bu yàgg mais euh, beneen cas mooy Yankhoba Diattara acte bi nga xam ne posé na ko boobu léegi ça mm. fekk ko ci bu waree démissionné ko fii wala le président su ko defee ku mel ni Macky Sall bàyyi noonu mu sedd ce qui veut dire ko comme ni ñu koy waxee am na ci loo xamante ñoom ñaar ci si wàllu kilifa yi ñu ngi koy waxtaanee jëm ci li nga xamante ni quand même mooy ci élection présidentielle bu newee Idrissa Seck ne même de waxtaan concertation boo xamante ci conseil économique lañ koy defee ci li nga xamante mooy wàllu mandat bi loolu lépp quand même il laisse faire mm-hmm. ce qui veut dire que ñàkk waxtaan boobu amut ci li nga xamante mooy seen diggante parce que il considère que surtout ku mel ni Macky Sall c'est la situation quand même qui l'arrange parce que ku mel euh, il l'a dit gis naa les jeunes de de réew mi am ñu ko tontu wala nanga mais am na ci loo xamante kam lu jar yoonu maanaam la parce que s'il part ci élection yi ku ne xam presque son trimestre mais ça peut faire l'affaire nga xamante ni quand même moom mooy Macky Sall parce que suspense bi qui m'arrange non parce que pour plusieurs je pense qu'il a raté le coche lui-même il l'a dit jëm ci li nga xamante ni mooy chance bi mu amoon ngir nekk président mais bàyyi na terrain bi nga xamante par exemple bu ñëwoon tey ci campagne fu ñu fa demee pour mu remplacer ku mel ni Macky Sall yaa fi taxawoon ne moom vision am dépassé ki nga xamante ni mooy jam ñaajo boo demee moom ci élection tamit looy waxaat ci li nga xamante ni moom mooy bilan bi te côté boobu quand même ci wàllu infrastructure wala ci yenn domaine yoo xamante ni Macky Sall quand même doy na ci wala mais a a fait euh, def def na lu baax mais moom il peut faire mieux comment bu bu doon def mieux kon rek il allait rester dans l'opposition se nga a permettre euh, bun bun mu nekk beneen alternative quoi mais bu fekkante ne yow lëngoo nga ak Macky Sall ba à mm-hmm. quelques mois de la présidentielle boo demee tamit je pas que ci wàllu électoral nga mën a remplacer ku ma xam ne mooy Macky Sall Alaaji Malick ndax jàpp nga ni ñoom ñaar euh, réeroo nañu wala réeroowuñu surtout que moom Idrissa Seck mi ngi proposé wu tamit dafa mel ni euh, di dox tànk jàmm ci diggante li nga xam ne mooy opposition bi ak njiitu réew mi bi ba sooxel lu bëri ci réew mi réeroo mënul am ci diggante Idrissa Seck ak Macky Sall sa moom <laughs> il faut le dire dès le départ mais beneen bi ci des aussi xam nga Idi c'est un fin politicien on est à dix mois de la présidentielle. njomborton comme comme <laughs> se qualifie dix mois donc le cinq février mille vingt quatre mooy premier tour élection présidentielle. Mm. et jusqu'à présent boo xoolee coalition yëpp. amagul benn candidat bu nga xam ne mun nañu wax ni candidat bi moom mooy le candidat officiel d'une telle ou telle autre coalition sinon am na ñu nga xam ne dañu jóg déclarer seen intention d'être candidat mais amagul benn coalition bu nga xam ne daje nañu ni ay la yéwén diw mooy suñu candidat Macky Sall et toujours dans le clair obscur alors Idi boo xoolee keroog li nga xam ne moom la def tudd loolu sax nekkul conférence de presse c'était vraiment un show à, à, la Idi quoi waaw waxtaanu koor la doon def <laughs> pratiquement comme ni ko Cheikh waxee parce que conférence de presse bi déjà dès le départ il ci toute velléité wax leen ni bu fekkee ni euh, xam naa li leen fi indi yéen journalistes yi ndax dinaa doon candidat ndax Macky Sall nangam nangam bu dee loolu ngeen di xaar jarul ngeen di kii parce que loolu duma ma ci wax am na lu mu positionné wu mais boo mm. xoolee dans son discours soxna naata mm. c'est un discours très fin sur le plan politique parce que boo ko xoolee mi ngi procéder pratiquement à ce qu'on appelle une procédure par élimination boo xoolee mi ngi wax ci Macky Sall ci mbirum troisième mandat am na lu mu ci jot a wax comme quoi Macky pratiquement euh, il est hors de course ma ngay wax ci Ousmane Sonko di wax ne euh, ñaanuma yàlla ñu condamné ko waaye même buñ ko condamné bëgg naa mu doo bokk ci pomi te xam na ni juridiquement buñ ko condamné mënut a bokk ci pomi donc ma ngay ma ngay buux ma ngay buux Ousmane Sonko ma ngay buux Macky te actuellement nii ce qui est sûr et certain moo di ni il y encore le flou autour de la candidature de Karim Wade ak de Khalifa Sall donc moom day ñëw positionné wu comme benn larron bu nga xam ne euh, comme euh, Macky mën naa am du bokk. Euh, Khalifa mën naa am du bokk euh, euh, nu mu tuddati Karim mën naa am du bokk Ousmane Sonko mën naa am du bokk kon man war naa mën a porox ndollu ci diggante boobu pour mën a samp sama candidature donc Idy et dans des calculs yu nga xam ne tey dafa maanaam ressuscité boppam sur le plan politique. mais que peut-on faire avec des si ay si rek la fi teg mais xam nga maanaam Idy hmm. dans un passé très très récent. Hmm. Idy était presque inexistant sur le plan politique. mais actuellement nii comme ni ko euh, léegi Chérif waxe fexe na ba attirer toutes les attentions sur lui fi mu nekk ni projecteur yëpp ci Idy lañ ko braqué kase na euh, dualité bi amoon Sonko Macky et cetera donc moom fexe na ba ñëw tey jii attirer les feux sur lui tout le monde par de Idy mm-hmm. ñëpp a ngi wax ci Idy Idy est devant donc am na benn euh, euh, ressuscité wu na sur le plan politique ba nga xam ne ñëpp a ngi wax ci moom mu ñëw ci beneen mbir gars yi di ko song fu ne tout bord hmm. mu génnaat ni sama gars yi bu kenn tontu bu leen tontu ñi parce que duñu dara Macky Sall ngeen di tontu wala Abdoulaye Daouda Diallo mais ñeneen ñi bu leen leen tontu parce que c'est des moyens que rien pratiquement donc voilà il est en train de jouer son jeu politique et ne n'oublions pas que quel ak lu ñu mun ci wax il reste une force politique parce que on a bu ñu xoolee ci taarix bi ñetti élection la def ñaari yi mu jël deuxième benn bi mu jël cinquième donc il a un appareil politique bien en place et aujourd'hui Sénégal moom doy na deuxième bi euh, coalition boobu ni mu parce que ñun écarté woon amul parrainage ñoo ànd ak moom ah, mais c'est pas léegi noonu waaw jël na deuxième loo ci mun di deuxième benn Seck et puis entre temps certains l'ont lâché Marcel revenant peut sur le terme deal bu euh, Walf euh, xëyee je dirais peut-être bu fekkee ne c'est confirmé ce sera encore un deal ndaxte Euh, ñu ngi koy fàttali ba muy jël présidence conseil économique et social environnemental euh, bettoon nañu bëri euh, quelque temps après enfin dans le même dans la même veine mu mu mu rejoindre coalition Euh, Benno Bokk Yaakaar à travers son parti euh, son parti Rewmi euh, mais pour pour man fu mu nekk nii c'est le flou qu'il qu'il qu'il maintient moom Idrissa Seck et effectivement day tey xel ci doxalin bi muy bi muy doxal jamono ji au sein même de la coalition parce que wax nañ ko fàttali nañ ko mm. pour bien moins que sa jot nañ tëbal ay nit ndax on se rappelle par exemple de maître Moussa Diop mais moom jamono ji mu ngi mu ngi tenir benn discours boo xamante ne dafa mel ni rek wax na ko sax que n'a troisième mandat et que donc euh, moom il sera candidat pour euh, pour pour 2024 donc euh, position boobu noonu posture boobu dafa mel ni. Euh, daf koy euh, mettre dans une situation de d'être entre le marteau donc entre le marteau du euh, gis nañ am ay têtes fortes yu ci yoo xamante ne ñu ngi dal ci kawam ak de l'opposition malgré yenn médiation yoo xamante ne mu ngi koy bëgg def ci yenn dossiers yi notamment pour Bassirou Diomaye Faye d'après ce qu'il ce qu'il disait mais je pense que opération résurrection surtout lay lay lay wut jamono ji parce que Malick itam fàttali na ko c'est un un ténor quand même politique même si 2019 il a pu bénéficier de la coalition notamment boo xamante ne Khalifa Sall qui était inéligible euh, joxoon na ko ay voix am en plus ba mu jeexal deuxième mm-hmm. mais gannaaw 2007 ba mu jëlee deuxième euh, pour sa première participation ñu ko doon xaar 2012 pense ñu bëri gisoon nañ ci moom le successeur à Abdoulaye Wade euh, il a raté le coche parce que ci yenn doxalin yoo xamante ne joxoon jotoon na ko def mm. sa rencontre avec Wade jamono jooju et puis jamono ji également c'est une opération reconquête boo xamante ne mu ngi koy jéem a am

ça, pas euh, Parce qu'il y une chose, euh, il y a, y, a, y a de l'évolution quand même euh, dans, dans, histoire. Parce que Souni Demeb, mm -hmm. euh, une personnalité comme Zara Yantiam, euh, publié compte Twitter que il ne serait pas mauvais de tolérer d'autres candidatures au sein de la coalition Benno Bokuyaka. Ouais. veut dire qu'il y a évolution. Parce que bu yàgg ba dañu waxoon ni que Macky kese léegi ñu ne ñeneen mën nañu présenté wu au sein de Benno Bokk Yaakaar et la IDI des gens disent que ci nu mu tuddati bastion xaw ma euh, Benno Bokk Yaakaar lay lay euh, présenté wu donc ça veut dire que. moom vice président am ah. sax moom loolu la wax nee na ñoom Idrissa Seck mën nañoo jàpp ni jamono ji mooy. candidat coalition Benno <laughs> Bokk Yaakaar donc ce qui veut dire que réeróo amul. et je pense qu'on l'avait dit ici aussi euh, au tout début que sur le plan stratégique. Mm -hmm. par exemple Macky Sall si jamais. Euh, mu bokk si jamais conseil constitutionnel nangul ko candidature am serait euh, pas xaw ma mauvais pour lui euh, am keneen koo xamee ni mën na ko jàppale parce que gis nañ fii à chaque fois président sortant bu fi dem deuxième tour il se retrouve tout seul même si Abdou Diouf amoon na fi Djiboka sur ça oui. Euh, c'est ça c'est ça. gagner au premier tour wala perdre au second. léegi soo demee deuxième tour. nga am peut-être Idrissa Seck bu la jàppale tu te sentiras moins seul. Mhm. que yow kese comme Wade ni mu demee woon ak Macky Sall. moi je trouve que euh, deal la et c'est une stratégie politique qui peut prospérer. Mhm. merci beaucoup cher Tidiane Diawo alors euh, Idrissa Seck l'ombre c'est l'occasion de le rappeler livre Mortala Gaye bi paru aux éditions L'Harmattan <laughs> dem leen ngeen jënd ko voilà ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.